jërëjëf euh, mbokki internet ya ñu ngi leen wax jaajëfatee di leen nuyu di leen ziar di leen ndokkeel del soit ak yéen jataayu xam-xam buur géwél sur bi promédia ànd ceeg son aada seexu yàlla bi soxna aada moom defe naa ni kenn gënu leen ko xamaa yéen ñi nekk bitim réew wala yéen ñi nekk ci biir réew mi nee naa la mooy jigéen ji dàq seet ci mi loolu la yàlla dogal soxna aada ñoo ngi lay nuyu di leen ziar di leen ndokkeel bàyyi la nga nuyoog ñi la sar bi promédia rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli sëñ bu maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay. Soxna da mbiru Dof Ndeye la mel ne dëkk bi ah, dañ ko war a tëj waruñu ko tëj Amadou Sall moo nekk ci ginnaaw cool bi nga ko déggee. sëñ buur cool dégg naa ko. Mhm. te it gis naa ko. Mhm. li ma la ci mën a leeral mooy. Mm-hmm. ku ne xam na ne arme kenn du ko dul doxantoo. Mm-hmm. ba di ko génne di ko wane. ba di ko génne di ko wane. Mm-hmm. dafa am loo xam ne kat ñi dëggu ñëpp ànd nañ ci ne. daa jaaduwul. ndax réew mi kat dadul réew moo nga xam lu waay neex def. waaye damaa gis ne kii di Amadou Sall. na maytu bu baax ci côté Dof Nday ndax ëllëg dina demaat contre moom. mu ne. ëllëg dina dellu contre moom lu leer laa la wax. maanaam su ma déggee wax ji Dof ndey dina jàkkaarloo ji ak amulu Sall. jàmbaarloo ak ñoom mu ne nga takk wax ji te denc. Mhm. soxna mbir Ousmane sunk la nga ci waxoon fi mu ne patriote yi décidé nañu pour fayal ko deux cent millions. sëñ Bour man dama dul kuy wax di wax ak a waxaat. Sonko li ci moom lépp dama la ko leeral. Mhm. fa ñuy yegg yëpp ma leeral loo <coughs> li ma ci gis yëpp ma leeral la. mais nee nga ma coow li jeexagul. mais nee woon naa la coow li jeexagul. même bu ñu fay deux cent millions coow li jeexagul. sëñ Bour loolu duma ci waxaat nañ jàll ci leneen. ñu jàll ci leneen soxna sa fas gi tukkal àddina man fas gi li ma ci gën a yéeme fas gi nag gars yi dama leeral nopp laa nopp waaye fas gi li ma ci gën a yéeme mooy soxna fas gi ni ñu koy defee mooy fas gi. est-ce que jigéen mën na nax góor ba jëlal ko fas ko lonk ko ci awraam te di ko yëg. koo xamante ni moo jëkkëram am nañ complicité de dina ko man hmm. bu dee koo xam ne am ko nag. bu fekkente ni <coughs> jigéen nga tàmmoo daray feem. Hmm. munoo defal dara sa jëkkër ba mu satisfaire ko. Hmm. waaye bu dee jigéen nga bëri ruq lool di nga satisfaire sa jëkkër ba utiliser sa fas. fas gi soxna dama bëgg nga détaillé ko mu leer. fas gi ci noob lay dox mooy loo wax sa jëkkër mu ne waaw fas gi sëñ buur mhm. maa ngi koy fase wëñ mhm. bu xonq bu ñuul ak bu weex buñ ko fasee ba pare ci digg li mhm. day am ñaari ñetti band yu ma fay def ñetti bànd yooyu moom ngay dugal ci zakara bu góor gi boo ko ci dugalee ngeen sëy mu yëg boppam nga yëg sa bopp nga pare jël ko xooj ko ci ndoxu xorom mhm. ndaw saf mhm. soo paree taxal sa ndigg nga xool sa waay foo ko jëmee mu jëm foo ko diri mu jëm yow ku jigéen ki boo paree dangay jël fas gi xooj ko ci ndox ak xorom bàyyi ko fa quoi soo paree nga fëgg fas gi nga tax keroog ba nga ko fëggee tax boobu nga moom sa waay lu mu wax loo wax loolu lay wax loo ko laaj mu jox la ko loo ko laajut mu jox la ko léegi am na yeneen façon noot yoo xamante ne que jëmul ci diggante jëkkër ak jabar waaye comme koo xam ne dafa yilif ay nit bëgg leen yilif ñu déggal ko wala sax ba ci famille ah day am nga jur say doom munoo ci ñoom dara. waaw loolu nag soxna am na ci sunguf soo nga xamante ne mhm. wàllu nga am njaboot. Mhm. bëgg ñu déggal la. Mhm. su la ko joxee da jël sunguf si wut sa kaas def ko ci. Mm-hmm. def ci ndox def ci benn xalu safara ba mu teey mm-hmm. nga daal di ko naan diw ci sa yaram bu fekkoon wàllu def-def rek ñu yàq seen diggante wala muy seytaane rek dalay wan ginnaaw te dinga ko yilif dinga ko noot te doo ko gaañ xamaa la li tax ma wax loolu mooy waajur yu bëri des fois ñu yóbbante ma <clears throat> buur mooy buur jur naa sama doom ba mu màgg def ci moom la mu war a def buur sama doom bi mu takkee diw ba tey dafa mel ne xamatuma comprendre nga jabaram rek lay jariñ ak ay mbokki jabaram sëñ buur loolu warulaa jaaxal xam nga xeeti fas yi ma fi wax yépp ku ko ci am sa goro bu ragalul yàlla yow waajuru ku góor gi noppi nga cee jariñoo euh, da ngay gis léeg-léeg góor ñi ñuy faral di taxaw fu ñu romb taxaw fa saw ba mu nekk milieu boo xam ne sawukaayu góor la mhm. suuf soo ci sëñ buur boo ci tibbee ci kuddu nga boole ko beneen façon fas bu may fas man mm-hmm. nga wul ndox def ci jël suuf si def ci fanaanal ko ci ñetti fan boo ko fëggee taxu ko foo watat nit mu jëm fa tekk ak nemm lay def mm-hmm. maa ngi lay wax secret yu yéeme lii ma lay wax nag li tax dawuma ci dara mooy dama ko essayé matul semaine mu leer nañ muy tegtal bu leer nañ mais loolu noob dëgg la ko quoi. ñi ma ko defal teg ci seen bët dafa am yoo nga xam ni sëñ buur su ma la koy wax nga xam lii secret la. Mm-hmm. sëriñ si nga xamante ni ñaankatu yàlla dëgg lañ dañuy xam ne soxna si li muy wax lu yanu maanaam waxuma la nag ñee xamantoo ñee làmbantu xam-xam. Soxna dafa am ko ma yóbbante ci yow nee na moom problème am muy du yëg bànneex ci jigéen nee na mbir mi jaaxal na ko trop sëriñ si lekkal nañ ko lu ne. sëñ buur loolu pot yi ma ci amoon maa ngi koy wecci koo vingt deux mille mhm. te ñi ci jot a naan ñëpp wax dëgg yàlla fi nekk nii ku yëg bànneex ñu ngi koy yëg ku ko yëgul ñu ngi koy yëg mhm. ndax la mu doon dañ naan ka ko macca ko xam mhm. loo xamul nag xamoo ko waaye soxna Aada li mu yor du ko wóolu lii di ngóora lii di secret ci wàllu jigéen lim ci yor du jeex lii neexal liy tooyal liy xatal lépp am na ko te lum la ci jox rek lam ni la loolu lay faj dina romb loola kon mm. sëñ buur fii laa mën a yem ak yéen wàccoo naa ak ñoom. waaw wàccoo nga ak ñoom de. sëñ buur boo gisee lii. Mm-hmm. dangay ngay defee ni socc la. Mm-hmm. du socc. Mm-hmm. lan la. galan la. galan bi booy dem ci yoon. buy ji yoon nga bañ téye la fa. wala nga bañ faa jëlee gàcc da koy jël. ngeen baal ma laa xayaata fi diin diine amul gersa. nga dugal ko ci sax xarante. ginnaaw mm-hmm. nga sol sa tubay dem soo ñëwaatee ba ci kër gi galan boobu danga koy ëwlu takk ko ci sa ndigg coowal yoon wàcc na la kenn du la ci xisaar moom galan gii moom mi sëñ buur bi ci gën a garaaw mm-hmm. galan bi en même temps ñi ragalu dara mm-hmm. dañ koy soccoo fi ne moo ko soccoo woon nag tey jii nga dikk pour indil ma coow wala fitna doo ko tal te doo ko nettali moom galañ gi xanaa galañ gi dafa am fuñ ko nandal wala lan la wala garab gi mu góomi bàyyeekoo ko wala lan la garab gi mu bàyyee ko ku ko xamul xamu ko waaye séeréer si xam nañ ko hmm. <laughs> sëñ buur hmm. boo ko fàttee seeti ci malade jàppal ni dinañ la wone la malade boobu dee boo ko boo ko fàttee seex ko dem seeti di nit seeti ci nit ku feebar jàppal ni du wér day dee maanaam képp ñu ko joxe dañ lay maytuloo loolu bu ko soxli seeti malaat mm-hmm. dañ la koy dàgge mm-hmm. sëñ buur bu dëgg dee dëgg jamono ji ci wàllu sekkere danga ci toog danga ci toog non faalewuma ci benn góor léegi sekkere buy buy indi koom nag koom xaalis xaalis yi xaalis lañ bëgg soxna Aada xaalis sëñ buur baa yëg nga ni maa ngi lay wax guy gi ñu rayee nit waaw loolu yaa ngi koy expliqué barki dem sunguf foos sëñ buur jamono jii mu ngi lakk dëkk bi. te yow sunguf sa yow soxna Ada yor nga ci. damaa woor dama ne la. billaahi amul lu ko gën a foor. wallaahi amul lu ko gën a foor. damaa woor de. Mhm. doo ko suuroo dem tëdd nelaw te doo encaissé. Mhm. man maa la ko wax. est lu mu doon nag man ci secret damay essayer rek. xool ba xam. su ma paree doog a takk micro. wax. da ngay xool ba mu wér la ba mu wóor lii secret bu wér la. xam nga li tax. Mhm. dama dul wax man ci sama teeyaayu bakkat lépp lu may wax sunu borom ay tax ma di ko wax ndax dama koy ñam ba xam ne ci ne. Mhm. maa ma ko nit ba xam ne ci toog nga fii keroog nit audio ma ni ma sa ngóor gi maara day taali. waaw ah, ngóor gi de moom fexeel ba bu ko sëñ bi ñam ndax kon doo toog ñu liggéey. <laughs> ngóor gi de mu ngi mu ngi mu ngi tojum réew moom. waaw kon jeex na. ngóor gi moom benn affaire la moom. wàllu jigéen nit ma defal ci jigéen jigéen ja boroom këram laaj ko lan la utiliser yaakaar naa produit chimique yi jaratu ko mhm. ndax soxna Aada li mu yor yëpp bio la mhm. te kum ko ñamal ku ne wallaay azim boo xëyee dinga ko woo di nga seddal xolal soxna man li ma jaaxal keroog dañoo toog di wax fii am ku ma woo appel vidéo rek nga commencé wax ay mbiram moom ba tey nee na li ko jaaxal mooy yow seetalul xamoo turam moom xamoo turu ndayam xamoo turu baayam comme ni ko seetkat yi defee mooy jox ma su turu nday jox ma sa turu baay jox ma say at nangam ak nangam mooy moom da nga xool rek ne ko yow diw nangam yow diw nangam ak nangam ak nangam moom mu ne ma vraiment biir la ma koy wax sono aada ni mu ma gisee daf ma jaaxal. béccu ko di woo nga ma boole maa ko góor. Mhm. xaw ma ko guddi xaw ma ko bëccëg moom ma lay wuyu maa ngi tëdd sama la. wallaahi te bi nga ko wax dafa waat ne billahi wallahi tallahi li ma sama aar lépp wax lépp dëgg la ne billahi wallahi tallahi. dafa nga xamante ne jarul kenn di ko waxal boppam da ngay. mais damay jarul ngay jël say pitaaw léeg mi kat dafa yaatu géej la. Mhm. te nee naa la soxna li am ci secret seet maa da mhm. mhm. am na ndox. Mm-hmm. am na suuf mm-hmm. am na téere alxuraan am na kurus am na rab ni mm-hmm. kon secret yi ci wàllum seet mi ngi bëgg a bëri soxna seet doo ci wax lu nit di dindi waaw sëñ buur bu nit yaakaaree la te jamono jii koo ci laaj dara na la na si loolu dafa cher bu ko dugalee nag wax dëgg yàlla war nga ko mën a satisfaire jarul ay jox ma sa turu yaay sa turu baay sa turu nijaay sa turu làmbaatu nañu bàyyi làmbaatu ku ñuul ki nga dëkkal ku xees ki nga dëkkal ku gàtt ki ku ñu maanaam nit moom ci entourage bi dina am ku gàtt wala ku njool wala ku xees wala ku ñuul toog bërki dee moo ñaay yëngal nañ ñu toog nii rek ma ciy fo mm-hmm. li ma ci wax ñaari fan mm-hmm. ñu teg ci seen bët mm-hmm. lii duma ciy waxantu parce que alxuraanul karim su ma la bëggee seetal ba di la seetal rek sëñ mbuur foo mënti jógee loo mënti def soxlawul nga wax ma duma la koy génneel li ma yàlla may xeebu ma ko wóolu naa ko. Mm, mm. muy arme bu ma neex na. yàlla mooy maye. ndax jamono boo ma fëggee bu may nelaw sax bu ma yeewoo bëgg laa seetal dama lay seetal. Mm, loolu dëgg la. barki de moo njaay am na ko ma woo ñuy fawantu nii tam ci guddi gi. parce que alxuraanu karim yére bu jongo ma bu ma sol moo ko dagg jox ma. te ni ma noo seeta woo kenn. non non seetandoo kenn man buur nangu naa loolu man nangu naa ko. te kooku téeméeri seetkat am na leen. waaye man lay wër ba xajal mu ne tëddi. non man nangu naa ne yaa dàq seet ci réew mi barki Xaadimu Rasuul loolu moom man dàqoo naa ci ak yow Soxna lu lay tàggoo kon. waay sëñ buur. Mhm. ah kon dama ne lu dul jàmm jàmm ko gën. Mhm. te réew mi toll na foo nga xamante ni ku am ko la boot nu la neex ngay fecce. Mhm. dama bëgg gone yi ñoo xam ne àddina moo solo. ay doomi jullit lañ doomi nit ñu baax lan hmm. nanuy roy lu baax ta fonkante hmm. te nag maytulu lu safaanu ndax toujours nit dina yëngu ci loo nga xamante ni day defe ni bis buñ ko keppee am ñu ko lijjanti amaan hmm. amaana yaakaaram da ca jaare tas kon boobu waa aaxiru daawaan ani alhamdulilah wassalaamu aleykum wa rahmatullah